booy nelaw guddi gu mu nekk na nga jàng fatiha ñeenti yoon jàng suurat lixlaas yi ñetti yoon mun ngeen a jël note sax fi mu nekk léegi baaqiyaatu saalihaat mooy li nga xam ne waxtu woo jullee ba noppi jullit bu ne da nga ko def te dig nañu àjjana ci képp ku ko matal mu ngi ci risaala risaala fi naa bi saydin baaqiyaatu saalihaat mooy subhaanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allahu akbar ñeent yooyu la ñeent yooyu nga def ko ñeent yoon subhanallah walhamdulillah wala akbar wala ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala akbar ba muy ñeent yoon astaghfirullah al azim allazi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum mi ngi ci wirdu tijaan yi fukki yoon allahuma salli ala badri tamam allahuma salli ala nuuri zalam allahuma salli ala ala shafi fi jamii lanam allahuma salli ala mustaahi daari zalam fukk da nga mel ne ku saraxe ñeenti junni libidéeri wurus te da nga am nit gu rafet te da nga am tiyaba ko xam at mu ne da nga aji umra te ci nit gu rafet ngay deexe te yowul xiyaam képp ko toñon wala amé lon haa sa borom muy féeteeg mom fay ko yow nga lu te da nga melni ku jënd aljana ba mom ko muy sa alal sallallahu alayhi wasallam moko wax kon nak lolu fonk ko jëfé ko bokk na ci li ñuy jëriñ kon boobu bu ngeen jógee ko ci xamul mën nga laaj ku ko xam mu noteel la ko nga bind ko wala nga transcrire boo xamee arab walla nga mën a lire arab nga di ko jàng